maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ku nekk ci ak santam di nuyu Mariama Sabali di ko sant ndax yaakaar naa ni lii mënu woon ñàkk moo tax lu mu xat xat xat rek dañ fi jaar gis ak seen mbootaay bi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom Xadi Mbay ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu mbootaay bi yëpp di leen wax ni wax dëgg yàlla kontaan nañu ci taxawaay bi kontaan nañ aussi tam si jàppale ndax li ñu boole dafa rëy ndax chaque fois suma soxla saa suma ma geesu gis naa leen donc jàpp leen ni foo la ma teg rek teg naa fu ko ëpp suñuy ñëwul jàpp leen ni xat rek moo ñu tey lu ñu def feneen aussi yeneen nañ ko def fii loolu ngeen xam ni amul distinction si si si mbootaay yëpp yëpp sama njaboot bi mais xam naa wax dëgg yàlla seen jàppale si man si guddi ak bëccëg li ñuy dox a jóg nag te ma ànd kook sama jigéen bii di Aïssatou Diong aussi ñu koy sant rafet rafetlu taxawaayam ànd ko soxna kon Sall ak sama frère Matar Dioum délégation yi ma àndal yëpp mooy sensibiliser population bi si élection yi nga xam ni moom lañ jëm te dimanche incha allah les élections yi le 31 juillet 2022 ñu bëgg képp koo xam ni tey yaa ngi jàppale Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di jàppale Diop si di jàppale Diagne si di jàppale képp ko xam ne leader nga si dëkk bi di jàppale ay sëtu jom di jàppale Matar Jum bu kenn tay dimanche nañ ñëpp teel a jóg dem vote ji toog seen kër ku ñu yëg ni voté wul sax te moom empêchement xëy na amul oto bu ko yóbbu wala leen nañ ñu ko signalé ñu jëli oto bu ko jëli ñu yóbbu ndax fi mu toll nii li ñu soxla si élection yi mooy mu am benn taux de participation bu élevé. parce que jàpp naa ne rek moo mën def la différence pour que le président Macky Sall li mu soxla ci majorité mu mën a am majorité absolue te jàpp naa ñun ñëpp war nañ ci jàpp président Macky Sall nag booy wax ci bilan doo fi jóg booy wax ci programme aussi doo fi jóg ndax li nit ñi xam depuis bi Sénégal des Sénégal de 1960 à nos jours li ci président Macky Sall def ci réew mi benn président mosu ko fi def ñi nga xam ne aussi ñoom lañ jàkkaarloo du opposition dañu am jot jot bi ñu am nag di wax ñun aussi nañu am jot wuy ji leen wuy ji bi mooy dañuy ñëw di jaxase xel nit ñi di wax waxi góor jigéen nag waxi troisième mandat te defe naa ni président Macky Sall nee na tant que mi ngi réew mii affaire góor jigéen kenn du fi légalisé donc loolu ñëw fii di yàq xel nit leen ko wax ngeen ko ngeen xam ni waxi na xel troisième mandat aussi yàlla def na président Macky Sall dañ ko élu na trois ans de ce que deux ans nag soo ko wala ba fal ko pour cinq ans da nga koy wóolu jàppale ko mu eggale deux ko dese te loolu nag pour il faut documenter à l'Assemblée ndax sinon bu cohabitation amee dëkk bi kenn xamul fu mu fu mu jëm kenn xamu ko projet yi ñu sumb muy projet suñu hôpital bii nga xam ne yàlla daf ñu te pose première pierre bi lépp mën na bloqué te loolu il faut nit ñu xam ko donc nañu jàppale la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam tey président jël na ñett doomu Tivaouane dugal leen ci liste muy Diop Sy la maire muy Seynabou Gaye Touré muy Yaya Diallo te yaakaar naa ni kenn doot ko présenté ndax am na lu taxawaay bu am solo bu am si treizième législature donc maa ngi wax mbootaay bi yëpp rek ngeen jàpp si bu dimanche incha allah na ñëpp teel génn teel dem vote ji comme ça bu ngoonee yàlla def zone yi nga xam ne ñu ma ko dénk muy zone Fogny kër Cheikh Awa Balla kër Bakar kër Ndiobo kër Xaali Carrefour résultat bi fi amoon si local yi ñu amul di saa ko ëpp si élection yu jëm donc loolu rek la ñuy sant ñoom jàpp si maa ngi leen sant bu baax a baax di gërëm ndax dañ ñuy xaar kër Ndiobo kër Bakar ñuy xaar kër Baba Alima ñuy xaar te guddi na mais incha allah jàpp leen ni suñu relation man ak yéen yàlla moo ko téyel boppam te yàlla na ko yàlla gën a dëgëral incha allah ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla boole ñu toog boobu ba léegi kóolóor gi tey la gën a dëgër. 2019 ñëwaat la ngeen ma waroon 2017 wanaat ma ko 2019. élection yi mu ñëw waxaat ak yéen fii nga ne ma demal nga tëdd nga nelaw Kër Bakar di ko gañ yàlla def mu dañu Kër Bakar donc man Kër Bakar su ma tëddee mën naa nelaw ndax la ngeen waxante woon ak man lépp ak la ngeen mat sëkk ma leen di xamal ne tant que bàyyiwu leen du ma bàyyi. li ngeen bëgg loolu la ñu wax ngeen wax bi ngeen may woo léegi Diop si moo may woo téléphone te incha allah su ma dugg sama wax léegi doléance dina ko dégg te dinañ si jàpp ba li ngeen bëgg incha allah mu am. dégg naa discours am tey ku démb parce que fu mu dem ko di leen dimbali pour li ma dégg le maire wax ko mu ni oto mbalit yi nga xam ne joxoon naa ko ko mu jëm si dëkk bi. nee na mi ngi allah bu duggee dina renforcer fi nekk comme ça mbéy mi oto yi moo dugg fu nekk te jàpp naa dina egsi kër Bakar incha allah donc loolu ñu ngi leen ko wax beneen bi ci wàllu ndox mi aussi dégg nañ ko maire dina dégg dina ko dégg dañuy ànd ak moom jàppale ko si te li ngeen bëgg su ndox mi yàlla mën ko def mu sotti en tout cas li wax rek mooy le dimanche 31 juillet bu kenn tàyyal même buy taw sax. la nit ñi génn dem voté ji maa ngi ko dinañ teg oto fii ku sori oto bi dinañ dem déroulé nga ñëw voté ji ndax li ñu bëgg mooy taux de participation bu am solo ndax li ñu bëgg pour def la différence il faut que ñun ñëpp génn dem voté voté massivement voté la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax président Macky Sall dafa nañu ñetti doomu Tivaouane dugal ci liste muy le maire Demba Diop Sy muy Yaya Diallo ak Seynabou Gueye donc loolu war na tax ñun ñëpp ñu doon jàppale doomu Tiwaawan yi ndax jàppale yi bu ñu toogee biir assemblée lépp lu taam sax dinañ ko xeex incha allah loolu mooy kàddu yi. booy ASC yi nee ngeen da ngeen soxla pour participer man def naa ko cinquante mille jox leen pour ngeen participer incha allah beneen bi mooy jigéen ñi. kii moom du ma wax si kaw alam doon daal ñu ngi nii pour sama jigéen ñi laa ko jox incha jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf li bëgg a tas du ko def donc may wax waa Kër Ndioko que ñëpp nañ xàmmee spécimen bi am bopp fas bi que dimanche le 31 juillet même bu di taw sax dañ ñuy génn puus ndox na voté ndax réew mi moo ko laaj sinon ku nekk bu toogee si kanam dama tàyyel réew mi dina dugg si loxo yoo xam te am fu ñu projet yu président sumb dina bloqué wu te li nit ñuy wut ay cohabitation yaakaar naa réew mi fu mu toll si ñaari at yi soxlawul cohabitation donc nañ jàppale président Macky Sall loolu nag maa ngi si woo waa di si woo te di ko nuyu muy Khalifa Mbow di nuyu Lamane di nuyu aussi Goro Ndoye di tàllal loxo di leen tàllaat loxo ndax combat bi ñu génn ñoo ko àndandoo te bëgg nañ combat bi ñu ñëw àndaat si ak ñun pour yàlla may ñu doon. Serigne Abdou Aziz Al dama dégg mu wax benn wax ni boo amee xarit mu ni dafa bëgg a song gaynde donte xam ne ni gaynde neexul song nee ko ah gaynde day neexul song waaye bu songee àndal moom daf song gaynde li ñuy xaar si góorandoo yi ñu ñëw jàpp nañu man nag góob ma local yi yow laa àndal waaye lii ànd ma man góob boobu ànd. man su may ànd ak nit dañuy ànd ànd noonu ndax élection boole wuñu ndax jàpp naa ni li ngeen wax fii saa yu kër Ndiob soxla bu ñu gëstoo gis nañ ma wala gis nañ Diop si wala gis nañ Diagne si wala gis nañ Abdou Ndéné wala gis nañ loolu ko jëndee dara ki ngay tax nga naan koy xeex te ñun bu ñu xam-xam ni am nañ taxawaay ci dëkk ndax lu ñu am ànd nañ ko teewaat ko ak ki nga ne da ngay voté yow xamoo candidat bi sax wala xamoo ku jiite liste yow nga bëgg ni da bëgg a xeex benn bokk yaakaar fii si kër Ndiop dem na waa kër Ndiop leen ko nangu taxaw leen le 31 juillet ñëpp jóg bulletin bi ngay jox ci local yi ngay joxaat ñu lu ko raw loolu la ñu bëgg man de képp fu jaar ci zone yi ma jox sama xel dal na fa fii nag maa ngi leen koy wax bëgg naa incha allah ngeen mayaat ñu ndam ngeen ñu ko joxe woon ma déglu loolu ñëwaat fii ci kër Baba fekk suñu ay mbokk fekk suñu ay wënër ndax yàlla dafa dogal man mii jógee fay maam soppam te jógee ak kër Baba ñëpp xam nañu benn beneen si topp mooy bi ma fi ñëwee si élection yu passé dañ leen ma teeru fii wax ak man waxi góor te léegi waxoon nañ ma ñëpp ne ma ko mat sëkk ndax defe naa élection yi ma fi am sama première participation ay élection naa ni loolu moom sama xol bu sedd ma xam ne naa waa Kër Baabal yëpp ci seen di ñaan rek lii nga xam ni moo ñu tax a jóg élection yi war a xew dimanche dafa suñu nijaay politique nag ku nekk Sénégal fa la neex nga faratu waaye lépp ñu te Sénégal fi mu toll nii élection yi ñu bu yàlla defee ñu fal Macky Sall pour un mandat de cinq yàlla def mu def ñetti at mu des ko ñaari at si mandat bi muy laaj majorité pour mën a eggale ay projet yaakaar naa nag Sénégalais yi war nañ ko mën gunge jox ko majorité pour mën a eggale ay projet bu nit ñi wër nag di wax waxi troisième mandat ba tax nit ñi dañ koy sanctionné troisième mandat jotagul loolu 2024 mandat bi jeex boobaa nag sénégalais bu la neex xam lu bëgg def ñu def mais fii ñu toll nii si élection yi jot dafa jaadu sénégalais yi joxaat président Macky Sall majorité pour mën a eggale ay yi xam ne sumb na ko te jàpp naa ni lu mu yéene si Tivaouane yéen si département bi incha allah bu ko yàlla dogalee kër Babacar Diouf di seen bopp. li Lamine wax léegi waxuma sax Macky waaye tey bu yàlla dogalee man ak Diop si ak Diagne si benn ak Abdou Ndéné ñun ñëpp ñu ànd doon benn te ñun ñu xam lii soxla kër Baba Ali jàpp naa ni boo leen jàppalee Macky Sall ñun ngeen jàppale te jàpp naa ne aussi bu kër Baba soxla bala ngeen a gis kenn ñun ngeen di gis loolu. defe naa ne baax na nit ñi xam ñu ñuy xëccoo nag di opposition bi dañuy faral di wax ba ci dem rek damay dox daje kenn bokk si ñoom muy wax naan ku votel Macky Sall liste góor jigéen nga voté loolu wax du ñaaw la Macky Sall nee na tant que mi ci bopp réew mi Sénégal fii ko loolu leer na bu ñuy wax aussi waxi troisième mandat dafa naan loolu kenn eggu ko fa jotu te lu nit xam-xam xëy na suñu waaye li ñu gis fii dañuy màggee ba xam li fi président Macky Sall benn président mos ko fi def li mu fi def ci santé ba tey jii mu taxawal hôpital bu bees Diaw ak pose première pierre bu tuddee hôpital Mame Seydi Hadji xam nga tey ku amati malade bu hôpital bu weer ak juróom-ñett defe naa ni dootuñu la wax Dakar bu dafa évacuer malade dootuñu amati Thiès ndax lépp loo xam ne jumtukaay soxla hôpital bi dina am si hôpital bu bees bi incha allah donc loolu bokk na si ay yéen ñun nag amuñu lu mu àggale moom seen agement la amuñu aussi lu mu suñu téléphone yéen mais li ñu gis mu def ko fii si jumaa ji ñu sumb mu ñëw yëkkati deux milliards de kasi li pareewul moom lépp lu mu laaj dara ko si def donc ci doom ñu dégg sëñ Mountakha wax na ko Macky sama cofeel si yow saa yu ma xëy mu gën te fa ma la dénkaane woon ba léegi nii da te maa ngi la dénkoon dénkoon naa la Serigne Touba donc tey naa la gàllankoor Serigne Touba donc loolu ku ko am si fi nii kilifa yi xam ni ak président bi ñu yàlla jox président bu dox cër suñu bu yaru la ku yéene kër diine yi man mii xam naa lu bëree programme bu mu teg jagleel ko kër diine boo demee Porokhane def na fa résidence nga dem Daaru Muxti def na fa résidence nga dem teewal fii xadara def na fi résidence nga dem Kaolack def na fi nga amul fooy dugg ba si ñi nga xam ni tey ñuy mooy suñu mbokk catholique yi seen église sax Macky Sall moom dëgg yàlla jot na ñu jàpp président Macky ndax li ñuy wax li ñuy jàmbat naan dëkk bi dafa mel dafa mel loolu àdduna bi yëpp métti ak crise mondiale moo xam ndax dañuy jóge si crise bu métti muy feebar corona bi nga xam ne tey ñaari at am si dëkk bi génn ñu jóge si corona bi am guerre bu am Ukraine ak waa Russie loolu lépp moo gën a yokk crise bi les présidents lu dund yu métti métti métti fexe na ba lépp loo xam ne tey muy kuy jàngalekat bi ku doon fayeeku cent mille francs fi ne yaa ngi fayeeku ñeent fukk junni wala juróom fukk junni ku nekk santé bi doon fay ko cent mille yaa ngi fay ko ñeent fukki ko ëpp donc loolu yaakaar naa ni bu fekkoon dafay jógal pour teg Sénégal yu métti du jël 43 du ko séddale néew bi doole donc président ku bàyyi xel askanam donc le Sénégalais yi yow dimanche kenn bañ a tayal buy taw sax dañuy jóg mën a gis taw ndax fan lañ ko toll kenn bañ a tayal beneen bi si topp mooy dama ko waxee kër Bakar man de li ma gëm mooy képp ku muy ànd ak ànd ndaw lay ànd góor ndax bu fekkoon tey jii bi élection yi jàllee local yi jàll na Lamine Lamine Diouf mi gisuma wala Ndeye Fer mi gisuma wala El Hadj Malick gisuma yàlla boole nañu saa yi yoroon ma soxla dinaa di ngeen ma man aussi saa yi ma soxla dinaa leen gis loolu mooy ànd ndaw mais ànd na de nii rek élection jot na ñëw taxaw fi wax. élection yu jeex nga wan leen gannaaw bi élection ñëwaat man doxee ma noonu ku ma xam aussi xam doxee ma noonu kenn aussi lu ma wax rek mooy fës naa ko def incha allah ba na amul lenn loo xam ni fenn naa fa dugg di fu may dugg rek dama fiy sikk ndax lépp lu ma waxoon démb rek moom moo incha allah leen di bu baax a baax di sant Mati ñoom day sal ak day dégg am na bon bu ma leen joxoon pour kër maam Diarra Bousso bi. gannaaw bi dégg naa bon dafa réer loolu lañ ma wax ba jotuñu ñu dugal ko si bi Porokhane bi mooy deux tonnes ciment bi donc beneen bi nga xam ni tey mooy spécimen bi nga xam mooy spécimen bi am bopp fas di bi coalition benn bopp yaakaar pour nit ñi xam ne teel a jóg teel a voté ji incha allah dimanche su ngoon ñu ni Kër Baba Alima la coalition Benno Bokk Yaakaar gañe na ko defe naa loolu su amee incha allah defe naa dina andi li nga xam ne mooy andi mi stabilité si dëkk bi mooy andi aussi li nga xam ne président day mën a projet bii tamit maa ngi koy jébbal suma mbokku jigéen ñi. anam salaamaaleykum Ndeye Faye waaw. loolu moom maa ko jox sama jigéen ñi pour ñu barkeeloo incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah